alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi nuyu waa Malbenn ak képp koo xam ne mu ngi leen di teewlu. di sàkku ñaani bépp taalibe di ñaanal bépp taalibe yàlla bu kenn gàtt fan te képp kenn ci ñun li mu bëgg yàlla jàppandi loolu lépp nag tegu ci kaw bëgg yàlla gu mat tegu ci kaw bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu mat yàlla ak yonent bi képp ku leen bëgg rek dangay bëgg seen wiraasa dangay bëgg ñi leen donn su boobaa dangay yegg ca yegguwaay ba ba nga xam ne doo am xàjji ak seen ñun nag suñ ne yàlla ak yonent bi dafa am ci ñeneen ñaar ñuñ feeñ ci ñun muy Cheikh da Ahmad Tidiane ak Baye ngir man de yàlla yàlla na nekk ak ñoom euh, yaa ngi ma laaj nag ci imam yi ak olama yi seen décret bi ñu génnee ne aja nekku neen lu jëm ci julli juma ak jullit ñi dajaloo moo xam wasifa la xadara la ak leneen lu dut loolu may wax ne ñi askan wi may waxal daf ci bari ci ñoom ñoo xam ne duñu dégloo xel dañuy dégloo xool képp ku ci sa sëriñ defoon déclaration ne dafay julli bëggatoo dégg keneen ku wax dangay dem julli ci ndax sëriñ bi moo ko wax képp koo xam ne sa sëriñ dafa ne bu leen julli ma ñëw war a wax ne neen julli kenn duma déglu ndax sëriñ bi daf ne neen julli buñ julli kon muy itam euh, askan wu metti woo xam ne li leen neex soo ko waxee dañ lay défendre ba jant bi génn li leen naqari soo ko waxee duñ la dégg ginnaaw bi ma xamee yooyu yépp nag kon lu tax ma war a wax mooy damay wax te yàlla rekk tax dafa am benn waaye mu ne ma sa wax ji dafa am nu ma ko gisee boo ba paree man noppi ki dend ak man na ma ni ma la xamee lu tax kii wax noppi ma ne ko man su may wax ñaar moo tax may wax suma bakkan bi ak yàlla mu ne ma déet waaye ma ne ko suma bakkan bi wax joo xam ne su ma ko waxee lii laa cay wut su ma ko ca amee xaaratuma ku rafetlu ak ku ñaawlu ndax la ma bëggoon ci wax ja man am naa ko ñaareel ba ma ne ko wax te yàlla tax man su ma waxee te yàlla tax ku nangu ku bañ man lijjantiwuma loolu ndax yàlla fay na wax jii nag dama koy wax te yàlla rek tax ma yemale ki nga xam ne d'accordut ak man ak ki d'accord ak man yaakaar ci fayu yàlla rek alquran ak diine lislaam ji ci ñaari atte rek lay dox benn atte bi mooy yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yàlla jox diine ji mu leer lépp lum def sunna la lépp lum wax sunna la luñ def ci kanamam mu noppi ci wala mu dëggal ko sunna la leneen lu ñëw ginnaaw loola nag te yàqut dara ci sunna yonentu sallallahu alayhi wasallam sunna la ndax lu yokkut danga nga wàññi dagan na léegi yi tamit ay boroomu xam-xam yu sell yuñ seede seen màndu ak ragal yàlla suñ dajee àtte buñ indi ci lislaam islaam daf koy nangu mu ngi mel ni tey Cheikhu Tidiane Abdul Qadir Jeylaani Eh, Baye Niass Cheikh Omar Foutiyou Tall Aline Harazimi Serigne Touba Maodo Malick ñëpp suñ bokkoon jamono luñ dajaloo dogal ko julliti loolu yàlla da ciy ànd ndax ay boroom xam-xam yu màndu leen ñooñu laa lim waaye ñu dut ñooñu ba tey ñu ngi am xam-xam te ñu ngi màndu. boroom xam-xami senegaal yi ak imaam yi. ñoo dajaloo génnee décret ne dakkal neen julli ak dajaloo jullit ñi ci mbooloo daj dakkal ak néganiku ngir lan dafa am feebar bu bees buñ ragal mu lor jullit ñi ñu ne neen taxawandeku wàlle ba yàlla indi ci saafara may wax ne feebar boobule boo tisoolee sa jàpp bunt jumaa ji ubbi su ma ñëwee jàpp mu wàll ma fi léegi juróom-ñeenti fan wala juróomi fan saa yu ñëwee laal bunt bi wàll na ma boo solee mbubu ñetti fan mu wàll la suñ dendoo ci jumaa ji di julli buñ paree nga nuyu ma man ma nuyu keneen nuyu keneen sàppe suusu yëpp daneen wàllante am na jumaa yoo xam ne sàppe yi dina jël téeméeri nit kon benn julli tusubaar téeméeri nit am ko téeméeri nit yooyu dellu seen kër yaa ngi ñeenti jabar yaa ngeeg fukki doom ku ne ñëw nuyu la pot bi nga téye naanee nga tegaat say doom naan rideau bi nga téye ubbi nit ñëw laal ci biir balaa beneen jumaa ji di ñëw téeméeri nit yooyu kenn ku si nekk wàll na ko benn muy ñaar téeméeri nit ñoo ñu dajeewaat saan si jumaa ji ñaar téeméeri nit yooyu ñaar fukki nit julli si neen ku ne yaa ngi ci benn sàppe nga pare nuyuwaat ñëpp sàppe si ñëpp am parce que da ngay nuyu ndeyjoor nuyu càmmooy te ko nuyu mu nuyu keneen noonu lay wàllantee su ko defee ba balaa nit ñi di pare julli feebar bi dina wàllante ci jaarante ci biir julli lu war a mat fanweeri at fanweeri fanweeri junni nit soo waxee lii nag ñu indi la question ne ña ca baar ba ñun lijjantiwuñ ña ca baar ba ndax demuñ baar soo waxee lii ñu ne la ñuy football dëgg-dëgg ñun lijjantiwuñ ñuy football ndax futbaliwuñu soo waxee lii ñu ne la ci restaurant ya alhamdulilah suñ kër yi lañuy ñuy lekkee ñun li ñu tal ñun comme jullit mooy li gën a foor ci ñun gën a màgg ci ñun mooy julli te suñ dajaloo ci julli mën nañoo wàllante te yàlla dafa fonk bakkan ba sàmm bakkan saa su nekk moo gën sàmm diine ndax diine daf fi nekk ndax nit ñaa ngi fi bis bu nit ñi jeexee diine amatu wax naa ne diine ñetteel la ci doomu aadama doomu aadama den ko bind bindi ko ak aada indil ko diine pour mu régulier société am diine dafa ñëw pour régler nu ñu war a doxee nu ñu war a waxee nu ñu war a jëflante ngir ñu mën a bëggante te jàmmalante te mbëggeel moo tax yàlla bind ñu ci mbëggeel lañu yàlla bind bim ne lan ahraftu daf ne fa ahbabtu dama bëgg mbëggeel googu leen ñu bindee yàlla bëgg ñu ñu di yonantu mbëgg mbëggeel diine mbëggeel diine bu mu munti doon dafa ñëw rek pour yemale nit ñi dund ci jàmm waaye su nit ñi nekkoon ci yetu nekk ci cosaan ak doomu aadama kese wallahi duñ soxla diine ndax bi fi aadama nekkee diine amut ta suñ deyee ba dellu ci cosaan ak doomu aadama nga xam ne sant yàlla rek la ñuy nekkee diine du am aljana diine du am safara waaw lu yàlla indi nag pour mu réguler société bi su feebar ñëwee ba loolu war a tàqale wala war war a yokk feebar bi doole rey nit ñi ndax du jaadu nag ñu dakkandekul loolu julli ci kër yi lislaam commencé na te julli juma amut yonentu bi muy julli yàlla jox ko dëgg mu gën a dëggu ñépp bim ragalee na suñ génnee julli ñu rey leen daf doon làqatu julli te mooy jëmmi njàmbaar moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam ku ko tagg tagg jàmbaaram moom la yàlla may lu mayut kenn loolu nangu neen ko waaye bim ragalee loraangeeg julliti daf doon làqatu julli waaw xanaa den ma bëgg a wax na ñoo ëpp yonantu fit ma ne déedéet den ma bëgg a wax na ñoo ko gën a bëgg diina ma ne déedéet kon lan la dama naan ñàkk xam rek ma génnee loolu ñu ne taw lan la yërmande te dëgg-dëgg yërmande la bay Ñas sax den koy misaalee taw Cheikhu Tidiane den koy misaalee taw yonantu den koy misaalee taw te déglu naa suma sëriñ suma làmp suma royuwaay suma delluwaay professeur Barham Diop mu ne taw si arab den koy tuddee njëriñ su taw bi baree maanaam su njëriñ li baree lor amul de taw ndox mi bari soo demee ci jumaa booleel tusubaar ak tàkkusaan dem ñibbi toog sa kër booleel timis ak gee ñibbi toog sa kër su dee taw moo la mun a may ci fiqhul islaamiyya mu leer naññ nga mun a boole ñaari waxtu julli juróom benn bu jot ak bu jotul kon su loraange duggee ci jullit ñi mën nañoo sukkandiku foofu dakkandiku gum daje yi dara nekku ci ma wax li ma waxoon ma ne Sénégal dafa métti sénégalais dafa métti gambien gën koo métti waaye daal ànd naa ci man ci lu bari te dafa jaadu yi tamit ci lu bari te dakkande ko loolu has nothing to do with xeex lislaam ak gàcceel lislaam ak daaneel lislaam déglu leen yonentu sallallahu alayhi mu ne su mbas amee ci barab bul fa dem boo fa nekkee bul génn léegi su amoon màkka na ña nekk Makka ñuy wër Kaaba gi wutuñu waaye ñun kenn du dem Chine la feebar bi jógee amatuñ benn kaabu bees xam nga lu tax nit ñaa ngi toog seen kër yi kenn génnut Italie ñeenti téeméer nit dee fa benn dor waaye amatuñ cas bees lu tax nit ñaa ngi toog seen kër waaye ñun Sénégal ak Gambie bi ma dëkk quarantaine bu baax sax fu ñuy denc nit ñi buñ ko buñ feebare sax amuñ ko. ñun feebari normal sax da dem France Maroc faju ci Sénégal ak Gambie amuñ ko Sénégal amuñ ko te Gambie senegal la ñuy faju see ñu mënul Sénégal door a dem Europe maanaam senegal slip bu ndaw la def ci wàllu wér-gu-yaram Gambie moom sax amul sax slip pour misaal waaw léegi réew yu mel noonu nag nga xam ne ñun moytu leen mën raxasal sa loxo soo tisoolee fattal sa bakkan boo paree sànnil ci kii ba boo nangam nangamee ay matuwaay lañu mën a jël mais mënuñoo faj. waaye ñu ngi jël matuwaay parewuñ nag ñu ne dañuy taxaw ci tawxiid dañuy taxaw ci bëgg yàlla yàlla mooy reye feebar bi nangam nangam alhamdulillah loolu yëpp dëgg la yu xii yu miitu dafa leer waaye fekk ñu ngi jaawale zahir ak baatin suñ suñ xam yàlla du wér du wóor da ngay indi zahir ba mu doon cinquante nga indi baatin ba muy cinquante nga boole muy cent pour cent nga am allahu lu dul lii du mahrifatu billahi xiyaas la ak xam-xam rek te mboolem xam-xam micc la ba mu des mahrifatu billahi kon ñu bañ a jaawale zahir ak baatin du benn lii lu jaadu la ànd naa ci te maa ngi wax ak ki nga xam ne moom bu déggee dëgg rek daf koy nangu comme ni yonent mu meloon mu taxaw Seydina Omar na ko déedéet lii la yàlla wàcc mu ne ko alhamdulilah Omar ndokkeel naa la nangu naa li nga wax man yaa rasulullahi comme bi Baye Niass indee xabdu ne teg naa suma mbooleem téere ku ma indil xaddis donte ne wérul ma jox la ko te nangu ne su julli dama war a yor suma loxo maa ngi ndokkeel ki nga xam ne bu déggee dëgg def noonu Baye Niass ni mu fonke woon baayam ñun fonke wuñ ko bàyyi Niass ndax xamuñ Baye Niass te moom dafa xamoon baayam waaye bi mu juddoo ci kër fekk ko mu yor loxo mu dem ci xam-xam ba xam ne den war a aj loxo dafa bàyyi baayam ormal ko ci noonu ba pare di di jël loxo mi di di di di di di aj ngir roy sunnatu rasulillahi maa ngi woote yi tamit sëriñ bi baax na lool waaye imaam bi baax na lool waaye xam-xam boroom xam-xam bi baax na lool waaye waaye gi dafay yàq wax waaye danaa ko wax waaye ñoom ñépp bakkani doomu aadama bi gën a bañ yàlla ci kaw suuf moo ëpp solo yàlla jox na musa doole Moussa ñaan yàlla suuf wax suuf Moussa yàlla jox na Moussa doole suuf di ko déglu xaroona mere Moussa mere xaroona ci dëgg ne suuf lakkal toogu bi toog muy sées bi yenn boroom xam-xam wax ne ne keroog ba tey sées baa ngi dugg ci suuf si te xaroona di yuuxu naan ko baal ma maa ngi lay lentalu ci yàlla Moussa di dummooy naan ko suuf wannal yàlla pare nag def discours bu tàng tamit mu ne ko muusa mu ne ko waa mu ne ko bis ni ki tey suuf dootu la déglu te dootu déglu kenn mu ne ko Moussa xam nga lu tax bi mu lay ñaan baaloo ko ya Moussa ne ko déedéet mu ne parce que bindoo ko moomoo ko doo boromam soo ko moomoon rek bu leen baal ma nga baal ko yàlla am lu ko métti noonu yàlla amee lu ko métti nag noonu la yàlla di amee lu ko métti su jullit ñim gën a fonk ci suñ gëm-gëm ñun ñun dañu gëm ne yàlla jullit la gën fonk waaye gëm ne na rek aadama yépp yàlla fonk na leen waaye ci ñun li ñu gëm ñun ahlu sunna den gëm ne jullit ñi la yàlla gënal ci ñu dul jullit man bokk naa ci ñu ko gëm ndax dina neex yàlla jullit bi jugee koo këram ci turi jaamu yàlla di dem ci jumaa mën faa jëlee feebar te bu ko fa jëlee amuñ ko ko mun a faj yàlla musta wàcc dafay yónnee lii lépp nag suñ ko dajalee maa ngi oo ñu ñaan yàlla gis nga addu on yi astajib lakum règlement neewu ci newul soo wasifa soo demee ci julli mbooloo soo jàppee soo soo so déedéet ñaan ma rek ma may la moo xam da nekk ci lu bon da nga nekk ci palaasu bon ñaanal rek loolu mooy wane yaatu yàlla ak tabeem waaye su fekkee boo ko waree ñaan dangay ngay simmiku da ngay solu dangay ngay defaru kon du yàlla man mii tey ki ma gën a bañ am na nu ma koy ñaanee xaalis mu may ma waaye yàlla nag dangay def lu la naqar lu ko lu ko naqari lu mu bëggul ba pare na ko may ma mu may la loolu mbaax ak yàlla kon maa ngi woone eh, xalaati dina wuute bëgg-bëgg yi du nekk benn waaye du yàq dara ñu ajande ko julli yi ba wér gu yaram am ndax suñ Sénégal ak Gàmbi gii Cheikh Tidiane si mu ne xamuñ fitna su ngelaw jógee sax nga dégg wuy suma kopp bi wuy suma kook bi wuy nu may def léegi nag comme ngelaw rek moo mun a fatt suñ bët comme taw rek moo ñu mun a jaxase ñu naan dañoo indoon ne nañu nguur gi dimbale nañu nangam rawatina nag coronavirus nga xam ne dafay jàpp longs longs mooy lii yéegal deret ak di ko wàccee pour yaram bi mun a fonctionner da koy jàpp day jàpp sa diggante purux gi ak bakkan bi di si tissoli te lu fa toj dootu wér dafay jàpp ay faar dafay jàpp ba buy métti dafay waral si biiru lépp lay def te amuñ garabam dëgg-dëgg moytu ko moo gën te buñ ko defee mbugalal yàlla du wàcc mukk suñ kaw te buñ fàtte ne ñu ngi dëkk ki góor jigéen ñu ngi dëkk ki naankat ñu ngi dëkk ki ñuy def corruption ñu ngi dëkk ki buur yu mànduwul ñu lépp loo xam ne daf daan tax yàlla xalak xeet wi ñu ngi dëkk ak ñoom te ñun ci suñ biir sax ñiy taxaw naan neen julli ji def neen ci bàkkaar yooyu yenn léegi da nattu ñëw na neen tuubal yàlla te téye suñ bopp ba mu wér ku ne xool na ngay def maa ngi jéggaluwaat beneen yoon di wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.